jaarale won ko si man fan yeb ñu ci doon wax man ak yow ba tay la ko yalla dogal euh, mbolo mi ëpp na li waye am na ñoo xamne ni ñoy magu groupe bi euh, ki moy president bi muy asmi mom moy president bi bi euh, dama leen di dalal ñom seet si kër gi ndax dañuy wax ne nit ko fam nekk fu nekk moy dalal ay ganam kon ma leen dalal di leen nuyu ñom ñep sama mbokk safoor te di leen ñaanal yàlla ñoom tamit liñ bëgg yàlla defal leen ko si sa kàddu ñuy jox as euh, mi nga xam ne mooy président bi lépp lu ci seringgi mu ko. Euh, sëriñ bi suñu papa suñu mam suñu sëriñ suñu xarit ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkeel ci tukki yi nga xamante jot nga ko fee def ci biti réew ñu la ciy ndokkeel ndax occasion la ba léegi ñu ngi soog di toog ak yow ñu la ciy ndokkeel di la ci ñaanal yàlla yàlla yokk sa wér yokk sa fan lool yàggal la fi lool lu ëpp su njortu ci barke Baye sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar di la wax ne tey say doom say soppe say xarit say taalibe ñoo ñëw fii toog ci sa kanam di bëgg présenter benn association boo xamante ni dañ ko formé woon fii te dara taxut ñu formé ko lu dul bokk na ci say xalaat ndax ku la xam ku ne xam ne ah, jeunesse bi bokk na ci li la ñor ba say waxtaan lu ci ëpp da ngay ñaax jeunesse bi ci liggéey di leen ñaax ci jaamu yàlla di leen ñaax ci ñu gën a góorgóorlu bëgg seen bopp loolu bokk ci li nga xamante ni moo ñu gën a motiver ba ñu créer association bi tuddee ko association des chauffeurs de Medina fii ci dëkk bi ñu ñëwoon tey di la ko présenté ak li nga xamante ni moom lañ bëgg def ci association bi mu doon association boo xamante ni it association chauffeur la mooy métier mi waaye dañoo ëlbatiku nekk di ay soldats fii ci pays bi ba nga xamante ni lépp lu xew ci pays bi rek bëgg nañ cee nekk suñu doole bëgg nañ cee nekk ak suñu xalaat ci biir loolu it euh, ñu ngi woon ci ansaaru diin ndax pays bi bu dee taalibi nga nekk doom ci dëkk bi li gën ba gën bokk ci soldaar yi mooy nga adhéré wu ci ansaaru diin yàlla def na adhéré woon nañ ci ansaaru diin kanaa dañ ko bëgg a gën a ñoŋalaat adhéré wu ci ansaaru diin nga xamante ni lépp loo xamante ni xew na ci dëkk bi surtout lii ñu dëdmal muy gàmmu gi euh, ñu man cee bokk ci liggéey boobu bokk ci ñi nga xamante ni danañ yokk taar danañ yokk set danañ yokk sécuriser ci dëkk bi ci biir sécurité boobu ci laay def tuuti waxtaan ba pare soog di jox euh, kàddu gi suñu euh, président bi nga xam ne moo yor communiqué moo yor euh, point boobu ndax am na suñuy mbokk yi chauffeur yoo xamante ni dañuy jugee à étranger di ñëw bu ñëwee du ñu am sax foo xamante ni fa la ñuy gaare wala boog duñu xam ni ñuy gaare yenn gaare yi bu ñu ko defee ci dëkk bi di indi ay embouteillage ak yooyu yooyu yëpp bëgg nañ ci ànd ak ansaaru din di ci liggéey ak moom ba nga xamante ni dana gën a indi sécurité ci dëkk bi gën a indi sécurité ci nit ñi sëriñ bi daal association bii di tax ñu sos ko mooy association chauffeur la waaye ànd pour liggéey ànd pour defar ànd pour gën a dimbale métier chauffeur moo tax ñu ne duñ def dara lu dul dañuy ñëw présenter la suñ bopp présenter la suñ liggéey fépp foo xamante ni nag association war na faa jaar ba am ay kayit yu valable yàlla def na dimbale nañu jaar nañ fa ba am ay kayit am nañuy récépissé am nañ ay kayit valable yoo xamante ni euh, di jënd wut nañ ko ba am ko moo tax ñu ne balaa ñu dara dañuy ñëw yaay suñ papa yaay suñ sëriñ yaay suñ lépp ñu ñëw présenter la suñu association bi nga xam ne ay doomi dëkk bi rek lañ di ay mag chauffeur mboolem chauffeur boo xamante ni yaa ngi ci fii ci dëkk bi nekkoon ci kër marab yi bokk nga ci association bi ay ndaw nag jël ko nga xamante ni doole yi si ñoom la des ñu jël ko pour gën a ñoŋal association bi motax ñu ne dañ ñew tay ci sa kanam présenter la suñu bop sakku sa ñaan sakku sa ndigal ba nga xamanteni ni lu ñuy def rek dañ koy defé ci kaw ndigal dina jox kàddu gi ki nga xamanteni ni moy mooy euh, président Thiam yor walu organisation bobu mu yok ci wax ci tuuti ci walu mu yor buñ jox kenn ci nga ni mohammed Mouhamed Thiam moom moo ci garage ñoro di nawlep président bi nga xamanteni mo fa nek def fa ñaar fukiat di xëccoog mom garage bobu te doomi dëkk bi la way juroom doomi dëkk bi la kooku it ñu bëgg ko jappalé ci anam bo xamanteni ni mu ndigal lañ koy amé ba nga xamanteni bu amé fofu garage ñoroom garage ñoro sin salum la buñ ko amé dana bok ci li nga xamanteni dana ñu dimbalé trop ñuy saku nak euh, ki nga xamanteni mom mo wara wax euh, bëgguñ wax ji yag ci ay simili yu neew ñu tënk ko ndax kelifa gu melni ku toog ak mom ñepp soxla ah, wax ji warta guddu nañ ko tënk rek ndax li gëna am solo rek moy mu dégg ñu sani ñaan digal ñu lo rek mo am solo waaye buñ guddal ay di yu neew ndax ñepp ko soxla te jotaay ba ñu ngi jégalu ma jox kaddu gi caam bu paré mu jox euh, mohammed mu ci kaddu assalamu alaykum wa rahmatullah serigne bi ñu ngi lay ziara di ziara sa maqama di la ñaanal yalla comme niko as waxe ka yag fi lol ak ñoo jité wax dëgg yàlla solo jotaay bii nii lépp ci say kàddu la balee ndax yow sa kàddu yëpp mooy jeunesse bi gëm seen bopp jeunesse bi xam ñoom liñ am ba mën koo doxal loolu bokk na ci ñun tey ñu dajee comme ni ko As waxee euh, association le chauffeur de Medina Baye mbooleem chauffeur yi nga xam ne ñu ngi doon dawalal kilifa yi nga xamante ne ñu ngi dëkkee Medina tey ñu ngi ci biir association bi am na ci ñoo xam ne dem nañ ba nekk mag mënatuñoo dawal waaye ñu ngi ànd ak association bi association bi tamit mu ngi ànd ak ñoom pour pare leen a jàppale ndax ku nekk xam na ne mag bu demee ba mag am na loo xamante ni dootu ko man point yi nga xamante ni nag ci lañ bëgg a wax euh, gàmmu Medina Baye mu ngi jublu si euh, nga xam ne tey fu nekk safoor sang fiy juyee ko di ñëw international di ñëw ci dëkk bi association bi tamit pare pour ànd ak safoor soosu noonu dimbale leen ci mal gare boo xamante ni tey ñu ngi koy gaare bëgg nañ leen a ba nga xamante ni dinañ gaare feneen fu dul ci biir dëkk bi pour dëkk bi mën a xaf pour nga xamante ni tey nit ñi danañ mën a dox ak seen tànk dem fu ñu bëgg a dem association bi mu ngi pare pour jàppalanteeg euh, loolu ci safoor yi nga xamante ni ñu ngi ñëw beneen point bi tamit bëgg nañ buñ leen utalee barab boo xamante ni fa la ñuy gaare association bi tamit bëgg naa jàppaleeg ñoom ndax am na ci safoor yoo xam ne dañuy ñëw buñ ñëwee dañuy sonn ci wàllu lekk ak naan ndax xamuñu fi te loolu yëpp safoor mooy dimbale moromu safooram bëgg nañ tamit euh, dimbale leen ñoom ba nga xamante ni suñ ñëwee wàllu lekk ak naan dana nekk ñun suñ chargé ñu chargé ko di leen ko dimbalee ba kere ñuy delluwaat beneen bi des tamit bëgg nañ mbooleem luy set setal ci dëkk bi association bi jug na comme ni ko aas waxee nekk soldaaru dëkk bi ginnaam ay safoor lañ waaye ñu nekk soldaaru dëkk bi pour liggéey lu jëm ci dëkk bi ci ay set setal ak loo xamante ni tey dafa jëm ci dëkk bi mu nekk loo xamante ni safoor moo ko war a taxawee. am nañ tamit ay carte membre yoo xamante ni ñu ngi war a jokkoo ak euh, ansaaru diin mu nekk ay carte yoo xamante ni tey képp ku ko yor rek nekk safoor ci dëkk bi am nga ak si dugal sa oto ci biir dëkk bi ak ji ba ngay jénnee dem gaara ji ko. loolu buñ jokkooku sëñ Munhamina danañ ci waxtaan ak moom comme ni ko As waxee wax ji matt guddal ndax As wax na lépp waaye li ñuy wax rek mooy comme niñ ko waxee li ñuy tënk rek mooy association bi loolu rek moo ko tax a jóg liggéey nekk soldaaru pays bi ak nekk nit koo xamante nekk mbooloo moo xamante ni dañuy jàppale pays bi ñu ngi doog a jënd nag tey ñëw ci soroon di sàkku nga ñaanal ñu yàlla di sàkku tamit nga ñaax ñu di sàkku tamit nga digal ñu ndax eh, am na loo xamante ni soo ko waxee danañu jëriñ ñu ngi sàkku tamit nga waxal ñu lu ñuy jëriñ am nañ tamit eh, kenn ci association bi nga xam ne tey ni ko as waxee eh, mu ngi fii la juddoo nekk Medina yaroo fi màggee fi jàngee oto gaaras Nioro ba am ay oto boppam di dawal tey président ba fa nekk am na fa ñaar fukki at jiite leen mandat mu ngi waaj jeex am na ku nekk ci association bi dafa def kandida pour opposer président boobu noonu pour jël garage bi mu nekk ci loxo Sine Saalum su ko defee ñu mën a ñoŋal liggéey boobu noonu ndax vingt ans yor na ko te liggéeyu fa loo xamante ni nit mën na cee teg bët ndax garage Dakar tey ci garage Nioro la jugee ko boo demee am nañ juróom-ñeenti oto yoo xamante ni ñoo ko moomal seen bopp muy daw seen kees ga ci li mu mujj a xam quatorze million mu nga fa mais garage Nioro bi nga xam ne garage Dakar ci la jugee ko benn dërëm boo xam ne waa ji teewal na ko seen kanam ne moom la gaz Nioro am amu ko kon nag tey am na doomu dëkk bi doomu pays bi juddoo fi yaroo fi moo jug pour opposer président boobu noonu pour jëlee ko fa pour téye garas bi ñu ngi lay nuyu sëriñ bi bu baax di ziara sa maqaama di ziara bàyyi ci yow dina la ñaanal yàlla nga yàgg fi lool te ànd ak wér yàgg ñoo jiite wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu sëriñ bi di nuyu mbooloo mi yëpp di am kontante biñ toogee ci ronam ñu koy présenté mooy sabab lañ boo xamante ni ñu ngi garage Nioro dëgg la foofu lañ jàngee oto buñ jógee ci daara ji ba léegi yaakaar naa jaaruñ ci benn métier lu dul oto ki nga xam ne nii moo jiite garage bi muy Pam Ndour ñu koy jox garage bi ñu ngi fa woon di jàng oto nekk ay xale yor na garage bi ñaar fukki at jàpp na daal ne moomeelam la ba tax na dafay wax ne moom su bëggoon ñu voté euh, mbuus yi naaw sax moom la ñuy voté ngir ne moom tee na autorité yi wala am na dogal boo xamante ni moom daal am na ko ci dëkk boo xamante ni ñun amuñ ko ñun nag amuñ dara amuñ kenn ku dul sëriñ bi si mooy ndax moo suñ bund ci bàyyi te ñun bàyyi lañ yaakaar moom la ñuy nokkee wala ñuy def benn réaction nag ànd ne nag euh, groupe chauffeur de Médina Baye ñu présenté ko suñu liggéey bi nga xamante ni moom lañ bëgg a liggéey ci dëkk bi présenté waale ko candidat bi muy man mii di ñaan sëriñ bi moom mi nga xamante ni mooy xaadimul uma te ñun ci uma bi lañ bokk ñu ñëw joytu ko suñ soxla pour mu dimbali ñu ci te xam nañ ne su ci waxee incha allahu taala liñ bëgg danañ ko am bëgg-bëgg bi yëpp mooy élection yi ñu teg ko ci règlement muy dëgg ak yoon comme moom dafay jaane moom mbir yi nam nu mu ko bëggee lay amee ñun tamit ñu ngi weddi ne ni mu ko bëggee du amee noonu yoon lay amee loolu daal ñu ngi koy sàkku sëriñ ñu ngi lay ñaanal yàlla ñu ngi lay ziyaara di la ñaanal fan gudd ak wér ci feem bi nga am ci diine yëpp yàlla yàlla matériel la ko ci dund bu gudd gudd gudd jaay nabi sallallahu alayhi wa barakaatu maa ngi kontaan ci toog ak yéen maa ngi mbégte itam ci ne gis naa génération dëkk bu ndaw bi seen xel a ngi xalaat jëm ci seen dëkk loolu déjà dooleeku la ndax ay xale buñ xalaatee jëmee ci dara rek mooy yàlla mooy bëgg dund mooy bëgg a yëkkati loolu ndax lu nekk ci loxo ay xale lay jaar màgg lu ci ay xale lay jaar parce que barkeeg yëpp ci xale yi rek day bàyyi ko buñ njëkkee nag ñun ñëpp ba ànd ne dëkk bi suñ dëkk la ko moom ñoo ko war a yëkkati eh, ñun ñëpp suñu xel dajee ci loolu gis ne loolu dëgg la ñun ñëpp ñu nangu ko dëgg-dëgg loolu alhamdulilah benn paa boo xam ne li top aussi si dafay doon lu positif hein yalla na leen ci yàlla dimbale euh, surtout ay borom métier yo xamné métier la bo xamné adina bi du ci doyal ndax mo amé adina bi transport ken mënu ko tàggale ak développement ken mënu ko tàggale ak développement donc won liggéey la boo xam ci ñi développer Sénégal deug deug ci ñi ci gëna a dëggal ci lañ ko ndax fu mu gëna a solee yéen a toxal yóbbu ko foofa ko soxla loolu ku nekk xam na ne mooy développement dëgg-dëgg économique mooy développement économique dëgg-dëgg euh, bu fekkee am nañ ci xale yu yem nii yu dëkk mari na ba pare am seen dow xam nga di ngeen wax léegi ci euh, ñun dañoo bàyyindiku ba ëpp bëriwuñu wax ah dañuy wax rek baax na muñ nañ bañ te dafa am jamono yoo xam maa ngi nii foo nga ne maa ngi nii ah. kula wax kula bëgg wax nga wax ko ne maa la gën a bëri wax affaire parce que wax rek la jëf bi nag bu ñëwee ngeen jëf nag ba xam ne jëf bi itam dina tabax dara jëf bi mën naa tabax dara seen kàddu bu àndee ak euh, seen dogu ak seen jeunesse ak seen expérience ci métier mi ak xam-xam bi ngeen ko xam dëgg-dëgg kenn mën a tuleen cee nax kenn mën a tuleen cee nax ndax xam ngeen buntu yëpp dafa des nag ñu organiser ko organisation boo xam ne dafay xaw a mel ni syndicat wala yu mel noonu ba ëllëg autorité bi balaa def dara garage Nioro dina xam ne am nañu taxawee garage Nioro mhm. luñ tëb rek def ko fa mhm. ñoo xam ne fii lañ war a jaar ñii lañ war a waxat ñii lañ war a déggoot mhm. pour liñ bëgg a doxal ci garage bi bu boobaa sax yéen nañ koy bàyyee ah, ñoom dañuy nekk rek ñi nga xam ne ñu leen di ko ñoo leen di muur waaye liggéey bi ci seen loxo la koy teg loolu bu ngeen bu bu waa Mérina jékkee chauffeur jékki ba si foofu dëgg dëgg loolu doy na dooleeku yàlla na ci jëf bu leer ànd euh, ndax nit fu mu àgg rek moo fa àggali boppam ci bëgg-bëggam ci góorgóorloom ci dogoom ci namm-nammam buñ namm buñ amee namm ci suñ dëkk bi ni nii la war a mel parce que dëkk bi dañ fee dañ fee dëkk rek ñun ñun da ko yàlla dëkk wee daf ñu koo dénk pour ñu garder ko ñu fi ñëw hmm? ndax gis ngeen ne àddina bi fi ñëw yëpp bu ñëwee bëgg nañ comme li nga li nga wax ci sa wax bëgg nañ dëkkuwaay bëgg nañ gis lu dal seen yaram bëgg nañ lu gis lu dal seen xel loolu yëpp nañ ko bëgg te loolu yëpp yéen a ko mën a xeex hmm? yéen xëy na dañoo yéex a am daje bu mel nii pour tëral li nga wax am benn place boo xam ne bu gan ñi ñëwee foofu la ñuy yóbbu sénato bi mais defe naa à partir d'aujourd'hui gannaaw tey gannaaw waxuma gannaaw tey waaye gannaaw gàmmu gi gannaaw tey dinañ góorgóorlu bu baax a baax waaye gannaaw gàmmu gi dañ jéem a góorlu <coughs> ñun ak yéen ñoom benn pàkk boo xam ne fu mu mënti nekk fii un hectare mel noonu ñu defar ko defar ko ba mel ni garage ba nga xam ne bu ñu ñëwee bu oto ñëwee rek foofu lañ leen di ah yuree ñu leen fa yaakaar naa am benn hectare suuf bu nekk fii yàlla mën na ko yombal ñu defal ko garage boo xam ne fu gan yi oto yi ñëwee fa leen diwire ji dëgg la loolu dëgg la euh, moo taxoon may xalaat naka lañuy ñuy yàqalee Médina maa ngi ciy ñaan président bi maa ngi ciy ñaan autorité yëpp pour mu may ñu suuf bu ñu yàqalee dëkk bi parce que dëkk bi xat na xat na parce que fi mu nekk sa doom fu mu jëlee que bu ñu amul bu dëkk bi yàqale ko kenn sa kenn doomam dootoo amati kër te kër yi ñu am doon doon na ko dafay xat ci ñoom donc bon il faut ñu am ñu am suuf yàkkar yi mari na ñu ngi ciy dox nag ñu ngi ñuy jox ay dig yanna ko yàlla àggali voilà su ko defee liggéey rek moo mën a liggéey rek mooy sottali affaire bi te Cheikh Ibrahima dëgg-dëgg njàngaleem yëpp gannaaw jàngal la diine nga xam ko nga nangu ko te loolu alhamdulilah am nañ ko ñun ñëpp nangu nañ diine ci suñu xool ñun ñëpp gëm nañ yonent ci suñu xol ñun ñëpp bëgg nañ lu baax ci suñu xol ñun ñëpp bëgg nañ jaamu yàlla ci suñu xol loolu loolu te te xol mooy yëpp yàlla may nañu ku ñu yar ba loolu yëpp nekk ci suñu xol ñu gëm ko mu nekk ci suñu jikko mu nekk ci suñu quotidien ah julli gi du baax du tardé na yëpp dara du tardé dafa des nag ñuy liggéey pour àddina bi ah dañoo xawoon wëccandiku tuuti nag bàyyi bàyyi ko rek ñuy coow rek bañ foog na ko moom eh, ñun tam am nañ ci wàll ko seeti ñu ko seeti dañ koy seete nag ku coow rek ñu coow ku xëccoo rek ñu xëccoo waaw ah, ku wax rek ñu wax ñoo koy jël déedéet yéen ñoo koy jël ah, ainsi de suite ko defee wax wax wax wax wax delloo ko ko defee nag ñu ngi jëf ñun tamit ah, buñ gisee autorités yi nga xam ne seen soxla war na bi ci ñoom buñ ko xamee dinañ ko àggali ci allah ñu ngi taxaw ànd ak ci seen gannaaw di leen ñaanal li rek laa doon génte gis mari na mu nekk ci discipline te discipline bi yéen rek yéen a ko mën a xale yi xale ko mën def xale yi ñun ñëpp ko bokk amul ñes amul siise amul keneen ñun ñi fi dëkk ñëpp yàlla ñu ko may ñun ñëpp ñoo fi dëkk man benn place bii laa fi am hmm? eh, am nañu ñoo xam ne amuñ ko ci ñi sant ñes ñi amuñ ci kër jàmbur lañ dëkk donc man dëkk bi ñun ñëpp a ko bokk kon nag ñun ñëpp a war a góorgóorlu pour mu nekk dëkk boo xam ne yelloo na lim doon ah ci bàyyi ci àddina bi et tout ça yëpp man na ko alhamdulilah rabbil alamin bu yàggul laa jógee Màkka vraiment ñi ngi lu Mérina ak taxawaayam hmm? ci diine ñi ngi lu Mérina ak taxawaayam euh, dëgg la ñoom ci seen wax nañ ma d'accord amoon nañ rupture bu jaaroon suñu diggante ak yeen jeexna waye waaye lolu jeexna jeex na nañ ko sax han ah, léegi lépp lo xamné baye bàyyi amoon na ko fii ci ci pal fal nañ la ko han ah, yokal nañ la Cheikh tegal ci Cheikh al Islam te ñun tegaluñ ko donc bon Mérina ngi dox mi ngi am barke mi ngi yëkkatiku donc ñun doomu Mérina itam dañoo war a fonk suñu dëkk boobu mhm. ah, kenn gënu ci ay kenn ñun ñëpp ko bokk soo su su ngeen di liggéeyee fu seen seen bëgg seen fu ngeen bëgg seen climat ak fa ci autorité yi mhm. voilà loolu maa ngi fi ak kenn ku dul man mhm. mën nañ ko àggale waaye nag yéen dinay liggéey nag ah yéenay liggéey ba pare liggéey tam am kilifa aussi lu mel nii di am kilifa tax ngeen def ko loolu itam nag continuer di feeñ ci seen yëngatu yëpp ah, boroomi kilifa lañ dañuy dem déglu leen dañuy dem waxtaan ak ñoom duñu réeroo ak ñoom ci dara pour bu ëllëgee ñoom tamit bu réeroo ak yéen ci dara ah waaye laaj naa laaj bay ne ko laaj la yow tax sa waxtaan yëpp léegi daal dafay laal politique mu ne taalibe yi politique lañ may laaj laaj bi ma leneen gannaaw politique lañ may laaj ne il faut mu wax ak ñoom ci politique voilà loolu la euh, voilà loolu la nañ dund suñu àddina ñoo ko moom nañ ci dimbalante ñoo moom si mbir na nañ ci góorgóorlu nañ ci dimbalante nañ ko setal nañ ko màggal bon euh, ren xat na waaye bu gàmmu gi passé naa leen jox benn hectare boo xam ne di di di ko réaliser incha allah thank you